jox ñi nga xamante ne ñoo ko war a doxal ndax xam-xam yàlla bi mu koy def ci doomu aadama xel moo taxoon te yàlla suñu borom dénk na leen xel ndax xel mi njëkk mu leen dénk mooy yéene ndax boo nekkee ci mbooloo am yéene di def ay geste ñi ngi koy defal ñu koy gis ba koy sentir seen bopp kon yow mi nga xamante ne yow lañ jiital sa ngorewaay mooy nga jël leen fan leen accompagner leen taf leen sa te am naa ci ñoom confiance ndax confiance bi mu am ci ñoom. dañuy yëkkati seen xel mu rafet di ko accompagner si man di jël sama xel mu rafet di ma ko nangul di ànd ak man ci liggéey bi ndax mbooloo mooy doole toog ñoom mbooloo mi ñoom ñoo ma fal liñ ma fal fal fal fal sama doole yëpp ñoom la kon tey bu yàlla defee ñuy ubbi benn petite entreprise kon dafay jaadu ñu jël ko mbir mi teg ko ci ay loxo loxo yooyu ñu ko teg nag on surviendra dañuy ñëw na rendre le compte indi benn dossier ne ah li ñu dénkat fii ak 3 mois mu nii Men ti, bire administrasyon wou wou, defan beni prezant organizasyon wou nye wak serge. Mwen mwen se prezant. Mwen, demen kofal, prezant organizasyon edi finas. Nak finasman bi, sayel di sokleti salvi yop, mwen mwen kotef. Men, bim koy, bim koy defen, defan mwen refetay, defan mwen refetay, lu mu ciy def daf may woon Omar lii kat ak lii laa bëgg a def mën na ko lii ak lii mu jël loolu boole def kon mooy président organisation président organisation et di finance laa koy fal moom ginnaaw bu ma defee bureau administration bi Massata ak bu Mamadou Touré ak Awa Dramé ndax mbir moo gis ci àdduna dafa am lu muy doxee ni muy doxee mooy mbooloo mi ñooy bëgg dara wékku la ko yow président bi yow président bi nga tànn leen ci seen biir ñoom dénkaat leen ko ñu doxal loolu mën na wàccee seen liggéey yow ndax man signature rek moo warloo ak sama diggante ak ñoom ndax Sahel en ce moment un an lay doog am yàlla def mu taxawal petite entreprise dañoo ñaan yàlla mu nekk ay entreprise entreprise kon nag ñu ngi gërëm kilifa yi tamit ndax gis nañ seen taxawaay du ñu ñàkk di ma jël ci suuf di ma wax doxeel nii defeel nii Je veux ku ni yow ni grand comme ni grand Landi grand Serif grand ñu fi mais yow yaa ngi assisté mais membre yi man Umar amu fay ndax amu tax en fay tey man sama xol sedd na trop xol lu mu seddee mooy lii ma bëggoon ñoom dañ ma ko ndax président li war ci rôle ñu dara ñu mu ba loolu ñu am kontante mais man maa am kontante ci membre yi nga xamante ne ñoom laa àndal ndax ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kon maa ngi leen di jaajëfal bu baax bëggoon nag ci biir administration bi su fekkee ñoom d'accord nañ bureau bi ma teg ñu validé ko ñu validé ko kenn bu nekk nag am nga sa xalaat def li xewal xalaat kenn ndax xalaat day jëmmal nit te nit bu jëmmoo rek yaakaar sax ne mbiram day leer kon nag loolu moo nekkoon kàddu yi ñëpp di sunu grand bi di grand Iba Kane xam naa képp ku nekk wax ma la ginnaaw raay mais gépp wala Dakar gépp wala axlu làmb gépp ñëpp xam nañ ko ràññee nañ ko grand bu baax sport rek ñor ko surtu surtout loo xam ne tamit day jóge ci banlieue loolu rek ñor ko moo tax tey buñ ko gisee fii tamit du nekk lu ñu ñu ci am contentement bu rëy ñun ñëpp moom moo yar waaw tey nag mu nekk bis bu spécial ci ñun boo xam ne yàgg nañ ko rêver dañuy nekk xale ndax boo gisee mbooloo mii leen fi dajale tey njëkkewul fii mais benn salle sport bu ñu doon daje ku nekk di ñëw di fay ñu fay entraîner loolu dem ba jur benn ànd bi ci liñ naan sport day boole looloo waraloon ñu dem ba créer tour ay tour par dimanche affaire yooyu ñu ne pourquoi bu ñu def GIE war a mën a jëmmal fii dara ginnaaw raay loolu moo waraloon ñu créer benn GIE tudde ko Sahel Fitness tudde ko Sahel Fitness GIE boobu nag ñu ngi ko créer le 4 avril 2022 lañ ko créé kon juste rek un an lay doog a am léegi nag ci la def suñuy démarche ci la def suñu démarche ba ne suñu objectif mooy Sahel Fitness dem ba am yëf yi boppam te buñ ko dee am duñ ko am fenn duñ ko yóbbu fenn fudul fii ci ginnaaw raay nga xam ne fi la ñu dëkk fi la ñu yaroo fi la ñu màggee te fi la ñuy tiitaroo moom moo waral lii saal bi nag metti woon na trop nag mais ñi fi nekk ñëpp di ay boroomi jom di ñoo xam ne chaque jour ñi ngi bëgg a def défi def loo xam ne dañ naan est-ce que dina dem est-ce du dem képp koo fi gis ku ne am na ñoo xam ne sax nekkuñu fi mais membres yi environ 36 personnes lañ mais ñëpp nag ay kilifa lañ képp koo fi gis ku nekk am na ci li muy yëngu mais lii ñor ñu lool lool lool lool lool trop ku gis financement bi xam ne nekkul financement bu ndaw amul lenn loo xam ne lu ñu utiliser la ñu dem jëndaat ko feneen lépp lu ñu fi jën lu nekk lu bees la ndax dañu ne buñ dee boo dee def mbir def ci fulla mais na nga jéem a def lenn loo xam ne kenn defagu ko. mënoon nañ ne ah mën nañoo jënd benn saal boo xam ne xëy na waa ji mënatu dem nii ak nii mais dañu ne lépp lu ñu fi def lu nekk na nekk lu bees. ba képp waaw suñu fonds propre nag fonds bi ñu ko defaree ça tourne environ de 10 millions mais amul dërëmu kenn koo xam ne dugg na ci koo xam ne bokkul ci membre yi ñun ñoo indi suñu fonds propre teewul nag defoon nañ ay démarches comme boo nekkee ci gox boo nekkee ci gox am ñoo xam ne ñoom ñoo ko jiite. lépp looy defal surtout lu toll nii war nga leen ko yëgal yëgaloon nañu leen ko ku nekk ñu wax la li nga xam ne moom lañ ci bëgg a def ñëpp ñu def fépp lu ñu war a def lu nekk tamit ñu ngi amul leen luñ ci néewal amul leen luñ ci néewal képp ku ñu war a seet tamit xam ne war nañ laa seeti seet nañ la ñu gis la ñu ñàkk la gis tamit def nañ démarche pour gis la mais xaaruñu kenn nag sunu fonds propre la ñu jël ànd ak suñuy grand yu baax ku mel ne grand landing mii chaque jour bu ñu bu ñu naree bu ñu naree reculer rek bu ñu ko gisee suñu ginnaaw rek dootuñu mën a dootuñu mën a dootuñu sañ a dootuñu sañ a reculer kon nag ñu leen di wax mbir mi Sahel Fitness Sahel Fitness su ginnaaw raay la du ñun ñii ñi nga xam ne ñoom ñoo du ñun ñoo ci jariñu mais dañu bëgg képp koo xam jeune la nekk ginnaaw raay ak képp koo xam ne Pikine ak fépp fo mën a nekk boo bëggee sa yaram am fi 100 pour cent. la. heure bi de 8h à 23 h du lundi au dimanche ndax dañ du lundi au samedi. c'est gratuit wala non da ngay séance TMR la. ah abonnement bi par mois la lay espace bi nak su féké walu dañuy def lundi le vendredi lundi le vendredi à partir de 19h jëm 22h moom mooy heure gym bi espace ni ngay gis jël ba 40 personnes ci gym bi en course asal waaw mën jël ba 40 personnes ci gym bi espace su musculation tamit comme ni ko gisee tey jël ba 20 personnes waaw loolu moy ni nga xamné en résumé mom lañ la doon tënkal li nga xamné Fitness mi ngi koy jëmmal na ko fii senegal ñu bëgg koo commencé nag suba le quinze mooy waaw suba la 15 mais suba le 15 mai lañ ko bëgg a ubbi fii ci ginnaaw raay ñu ngi ciy sant nag ñi nga xam ne tamit ñu ngi jàpp ci liggéey bi ku mel ne Ndiaye Ciss xam naa ne kenn du wax ci wàllu sport ci ginnaaw raay wala Pikine te tuddoo ko ci moom it mu nekk suñuy conseil am yoo xam ne bi ñu ko bëggee jënd ci moom lañu dem. mu jaay ñu ko am tamit yoo xam ne mu participer nag bu baax a baax moom it ñu ngi koy sant tamit di ko gërëm di sant nag ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp xëy na bu ñu limee rek dañuy juum mais moom bu ñu ko limee rek yóbbaale na ñi si des ñëpp incha allah ñu ngi fi ñu ngi ciy sant tamit ku mel ne Babacar Sarr mi fi jóge léegi tamit nekk ci maire bi sant tamit monsieur le monsieur le maire ñoom Pape Diop ak ñi nga xam moom moo xam ne moom moo ko waxee gox bi ñu ngi si sant ñëpp di ci sant tamit sunu. chef de quartier Ousmane Beng moom tamit vraiment jàpp na ci def na ci rôle bu am solo ñu ko ko waxee ànd ak nañoo ñun dugg ci koñ bi yëpp wax leen ko ànd ak ñun dem ci police bi présenté ñu loolu tamit ñu ngi ci sant ñun ñëpp daal wasalaam ñu borom ginnaaw rek mais toute la famille. de Self Fitness. donc vraiment des et aussi ici initiative parce que li Self Fitness. Euh, muy góor jigéen équipe bi euh, ay jeunes am ambition mais ay am engagement parce que ñëpp xam nañ fi ñu jógee ñëpp gis aussi fi et difficulté yi nga xam ni euh, moom moo leen fa jëlee tey ñu boole seen doole li ñu am ak li ñu amul ak en fait fi ñu wutaat ginnaaw raay la kon ça veut dire que eh, ginnaaw raay moom moo lañ ñor te ñu fi nekk ñëpp nag ay doom ginnaaw raay lañ donc su su rek li ma leen ñu gën a ñaax rek mooy eh, ni ñuy def ni ba booloo doon benn bokk ndey bokk baay bokk benn say eh, ba INSEE yi nañ ko gën a yokk jigéen ñi nañu xam ne ay jigéen lañ góor ñi seen kilifa lañ kilifa yi aussi ñu xam ne tamit jigéen ñi vraiment seen i jigéen lañ je pense que esprit solidarité bi su amee rek self fitness incha allah nañ ko seen mua lấy vô mình anh anh là là, là, là không không ಬಂಚಿಗೆ ಮೂಯೋ ಡೈ ಯೋಮಿ ಮೇ ಏವಿ ಡೈ ಲೋ ವಾಸಿಗೆ ಇವಿ ಅನ ಲೇಲ ಮೋನ ಲೇಲ ಸಣ್ಣ ಲೇಲ ಬಂದು ಡೈ ಸಾಂದಿ ಸಿಕ್ಕಿ maa ngi nuyu ñëpp encore une fois di ziar ñëpp ñu ngi jéggalu encore tamit một lần mais lii dafa nekk loo xamante ne lu nice la ci dëkk parce que comme ni ñu koy waxee rek sport mooy boole mu doon loo xamante ni dafa boole lu bari ci ñun bokk nañu ndey bokk bàyyi pour l'instant fii amul xaaj amul seen ku nekk tey ji mën ngaa tëdd sa kër moroom ndax li ñu boole muy sport bi kon dañ cee fier mu doon loo xamante ni tamit ñu démarré ko amaana demagul fenn mais ñu ci sant yàlla parce que ay ndaw lañ te ay ndaw tamit bu ñuy wut dara dañ leen ci jàppale bu baax di ci sant yàlla bu baax di ci woo ñëpp tamit ñu ñëw jàpp ci encore parce que ginnaaw raay la te ginnaaw raay dañ naan euh, Pikine mbooloo waaw te ñun dañoo booloo doon benn di woo ñëpp ñu ñëw booloo ñu doon benn tamit ci lii nga xamante ni ay ndaw ñoo ko sàkku wut ko pour mu doon loo xamante ni pour wér gu yaramu doomu aadama pour loo xamante ni sa sante tamit da nga ciy jëlee lu bari daal ñu ngi ci woo ñëpp. di ci rafet lu tamit lu baree bëri di ci rafetlu waa GIE bi ñoom ñëpp góor ak jigéen liñ ci def yëpp ñu ngi leen di sant aussi di leen gërëm di la remercier yow bu baax a baax. jërëjëf la trésorière borom xaalis bon moo ngay wax si salle bi xam nga loo wax. Ah. Atau salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp voilà di wax askanu ginnaaw raay lii seen yëf la Sahel Fitness bañ ko taxawalee moom lañ bëgg a taxawal bëgg koo ubbi suba incha allah lundi bi di leen wax rek ne ñu ngi fi di di au vendredi pour les cours de cours collectif ñu ngi fi di lundi au vendredi dinañ fi am aérobie bu di attaque bu di combat bâton step circuit lépp loo leen soxla rek personnel training nga nekk xale nga nekk mag loo bëgg incha allah boo ñëwee fii rek li nga fekk coach yu xarañ yoo xam ne dina leen mën a jàppale incha allah di leen wax rek ne loo leen bëgg incha allah boo leen fi ñëwee di leen ko fekk. yan âge moom ngeen am waaw xam nga sport amul âge. waaw. On tambal war nga sport mais comme ça dañuy soog jeune si jeune lañuy commencer 18 ans 16 ans 15 ans mën nga entrer. entraîner jëm kaw voilà mais xalé yu ndaw peut-être dina leen wutal un programme bo xam dina leen occupé par exemple ay cours de karaté ay cours de boxe cours de gymnastique au sol il ñu ngi xalat mais pour l'instant on peut a démarrer la musculation pour l'instant. gars yi li di uti yoof di ko uti ay Dakar lépp a ngi fii gétoo ah dama dama dama machine de haute machine de haute gamme génération dañ ko dañ ko jël waaw parce que am na yu bëri yoo xamante ni dañ doon xeeb boo nee boo liggéey jëlee ginnaaw raay baa nii wala espace nag loolu fekk ci saali man yi soo ñëw ci saal bi ñu ngi góorgóorlu ba doon la ci fekk tapis la boo xamante ni dernière classe la boobu. ñu ngi ko jëlee xaw a kii mais population Guinaw Rail jaral na lu ëpp lii te dinañ def lu gën a kii bi soo jógee ci tapis bi daal di ci vélo yi. vélo yi moom tamit c'est la même chose boo xoolee ay vélo électrique automatique dernière classe la. de de de de treize à de treize à a n'importe quel âge boo am rek mën mën mën nga si ñëw si kii temps boobu boo bëgg mën nga ko daw mu dawal loo ko. soo ñëwaatee si biir maskaay bi vélo semi. vélo semi. semi semi flexible. semi flexible. semi flexible. bii li muy liggéey bari na quoi. def nii mu taal. léegi benn. da wax li nga bëgg loo bëgg a liggéey da lay koy wax nii comme cardio nga bëgg a liggéey wala perte poids. wala dégraissage affaire yooyu comme benn nga def perdre poids mu def nii nga def nii mu ne choisir objectif nga def nii calorie da ngaa bëgg a lakk sa calorie affaire yooyu nga def nii mu ne la lii mooy objectif bi 100 nga validé mu ne la sa at ñaata at nga am par exemple nga def 35 ans mu ne la validé nga validé poids ñaata nga def 65 kilos mu ne la validé nga validé mu la lu vert lii fii la jëm pour li nga bëgg a liggéey bu fur et à mesure ngay dem. moo yàgg vert. waaw vert bi amatoo droit a bi fay. loolu objectif bi boo defee nii ndànk mooy vert bi fay na. waaw léegi nag chaque jour dala wax. jeex na. gars yi waa ginnaaw waa Dakar gis nga yow mi nekk Fass xam nga ne lii ñun li nga am amu leen ah? waa ginnaaw rek li nga am ma lii rek. yàgg naa dugg saal mais bii amu fa de ah bii amu fa bii ñu ngi ko jëndee presque 15 millions gise fet bii 15 millions lañ ko jëndee ñu duñ seen borom gisoo même pas une minute ngay commencé ñàkkutoo xel ah, à partir de une minute même pas une minute gis nga ma ah, ah. maa ngi commencé siit te noonu lay continuer te gis nga Jibi Diouf ñëwal fii yow lu bëri suukar ñëwal <laughs> wàññi si suukar bi ak sa lépp loo ci bëgg waaw gis nga mi ngi nii di dem ok te fii la war a sës nga atteindre sa objectif sama gars jërëjëf donc fii reportage baa ngoog àggali dernière relation filmé poussage poussage da assisté deux fois pour nan nga décliné boo décliné wàcc ku ne ginnaaw raay suñu ginnaaw raay wax wax mbër. mbër yi ñëw leen fii. suñu ginnaaw raay waaw secteur mbër yi. ah yow mii ambassadeur ginnaaw raay Eumeu Sène ñu lay woo fii sox ñu ngi koy woo fii. bac seras ndeysaan bëri ñëw leen fii loo leen yóbbu fii boo leen suba teel. di ngeen na kenn du leen gêné. am na am na box bi naa coach box bi. yaay coach box bi. soo xam na ma. paa bi xam na ma. naaru sokaas xam na ma. man xam naa la. Ibra waaw xam nga ma. man frère Baye Baye la. dëgg la waaw. Ibrahima bi ki yor Ama Baldé. waaw moo ma jàngal box. moo ma jàngal box muy Yves. Yves waaw Yves même sama copain. waaw moom laa tuddee sama taaw. ay ay lii moom. liggéey dafa bëri quoi niveau machine bi. pare nekk nañ la def. li muy liggéey dafa bëri. day liggéey dóor day liggéey triceps day liggéey ay coups de loxo. Hmm. lii lan lay liggéey bii machine bi. ak nu mu tudd. machine bi machine deux doigts la. deux doigts taxaw deux doigts. Hmm. deux doigts bi moo nekk nii. day liggéey dóor day liggéey triceps. Hmm. day liggéey ventre au corps. Je ligue et Je travaille les abdos. Quoi. Je ligue 6 séances. 6 séances. biceps systémique. Moi, 1 à 1. 1 à 1. 1 à 2 à 2. Donc, merci. Sama mbokk yi TV tey lii laa andi lool. Mhm. fitness di ouverture bi suba à partir de 8 h si suba. Ah, que vous entraîner. huit heures ba vingt trois heures ku bugg a entraîné ñëwal fii si salle Sahel Fitness di leen jox rendez-vous prochainement ñëw fi def reportage fekk gars yi si béeku bu baax a baax jërëjëf nga xamante ne ñoo ko war a doxal ndax xam-xam yàlla bi mu koy def ci doomu aadama xel moo taxoon te yàlla suñu borom dénk na leen xel ndax xel mi njëkk mu leen dénk mooy yéene ndax boo nekkee ci mbooloo am yéene di def ay gestes ñi ngi koy defal ñu koy gis ba koy sentir seen bopp

kon da fay jaadu ñu jël ko mbir mi teg ko ci ay loxo loxo yooyu ñu ko teg nag jour viendra dañuy ñëw na rendre le compte indi benn dossier ne ah li ñu dénkaat fii ak 3 mois muy nii mais ci bureau administration boobu dafa am benn président organisation bu ñuy wax Cheikh Gueye moom mooy képp kuy nekk fii membre ci organisation moom mooy sa président moom dama ko fal président organisation et di finance ndax financement bi sayel di soxla ci salle bi yëpp mom moko def mais bim koy lim koy defé day rafetlu dafa am rafetaay da chaque instant lu mu ciy def daf may woo na ma Omar lii kat ak li la bëgg def manako li ak li mu jël lol boole def kon mooy président organisation président organisation et finance la koy fal moom ginnaaw bu ma defee bureau administration bi masata ak Mamadou Touré ak Awa Dramé ndax bir mo gis ci aduna dafa am lu muy doxee ni muy doxé moy mbooloo mi ñooy bëgg dara wékku la ko yow président bi yow président bi nga tànn leen ci seen biir ñoom dénkaat leen ko ñu mën a doxal loolu mën a wàccee seen liggéey yow ndax man signature rek moo warloo ak sama diggante ak ñoom ndax Sahel en ce moment un lay doog a am yàlla def mu taxawal petite entreprise dañoo ñaan yàlla mu nekk ay entreprise entreprise kon nag ñu ngi gërëm kilifa yi tamit ndax gis nañ seen taxawaay biñu ñak ñàkk di ma jël ci suuf di wax ni yow grand grand Landi grand Serif grand donte nekku ñu fi mais yow yaa ngi leen assisté mais membre man oumar seen fay ndax amu tax seen fay man sama xol sedd trop sama xol lu mu seddee mooy ma bëggoon ñoom dañ ndax président war ci rôle mooy ñu mu liggéey loolu ba loolu yemb ñoom ña ko koo waxoon liggéeyal ñu ko ñu am kontante mais man maa am kontante ci membre yi nga xamante ne ñoom laa àndal ndax ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk ba kon maa ngi leen di jaajëfal bu baax bëggoon nag ci bureau administration bi su fekkee ñoom d'accord nañ bureau bi ma teg ñu validé ko ñu validé ko kenn bu nekk nag am nga sa xalaat mhm. mais li ñu xewal xalaat kenn ndax xalaat day jëmmal nit te nit bu jëmmoo rek yaakaar naa ne mbiram day leer kon nag loolu moo nekkoon kàddu yi nga xam ne mu ngaa sànni ci loolu waaw salaamaaleykum ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp di ziar sunu grand bi di grand xam naa képp ku nekk waxuma la ginnaaw raay mais Pikine gépp wala dakaar gépp wala ak làmb gépp ñëpp xam nañ ko ràññee nañ mu nekk grand bu baax sport rek ñor ko nag surtout loo xam ne tamit day jóge ci banlieue loolu rek ñor ko moo tax tey buñ ko gisee fii tamit du nekk lu ñu bett ñu ci am contentement bu rëy ñun ñëpp moom moo ñu yar waaw tey nag mu nekk bis bu spécial ci ñun boo xam ne yàgg nañ ko doon rêvé dañuy nekk xale ndax boo gisee mbooloo mi leen fi dajale tey njëkkewul fii mais benn salle sport bu ñu doon daje ku nekk di ñëw di fay ñu fay entraîné loolu dem ba jur benn ànd bi ci liñ naan sport day boole looloo waraloon ñu dem ba créer tour ay tour par dimanche affaire yooyu ñu ne pourquoi bu ñu def GIE war a mën a jëmmal fii dara ginnaaw raay loolu moo waraloon ñu créer benn GIE tudde ko Sahel Fitness tudde ko Sahel Fitness GIE boobu nag ñu ko créé le 4 avril 2022 lañ ko créé kon juste rek un an lay doog a am léegi nag ci la def suñuy démarche ci la def suñu démarche ba ne suñu objectif mooy Sahel Fitness dem ba am yëfi boppam te buñ ko dee am duñ ko am fenn duñ ko yóbbu fenn fudul fii ci ginnaaw raay nga xam ne fi la ñu dëkk fi la ñu yaroo fi la ñu màggee defi fi la ñuy tiitaroo moom moo waral lii salle bi nag metti woon na trop nag mais ñi fi nekk ñëpp di ay boroomi jom di ñoo xam ne chaque jour ñi ngi bëgg a def défi def loo xam ne dañ naan est-ce que dina dem est-ce du dem képp koo fi gis ku ne

mais na nga jéem a def leen loo xam ne kenn defagu ko mënoon nañ ne ah mën nañoo jënd benn saal boo xam ne xëy na waa ji mënatu dem nii ak nii mais dañu ne lépp lu ñu fi def lu nekk na lu nekk lu bees. ba képp waaw suñu fonds propre nag fonds bi ñu ko defaree ça tourne environ de 10 millions mais amul dërëmu kenn koo xam ne dugg na ci koo xam ne bokkul ci membre yi ñun ñoo indi suñu fonds propre teewul nag defoon nañ ay démarches comme boo nekkee ci gox. boo nekkee ci gox am ñoo xam ne ñoom ñoo ko jiite lépp looy defal surtout lu toll nii war nga leen ko yëgal yëgaloon nañ leen ko ku nekk ñu wax la li nga xam ne moom lañ ci bëgg a def ñëpp ñu def fépp lu ñu war a def lu nekk tamit ñi ngi amul leen luñ ci néewal amul leen luñ ci néewal képp ku ñu war a seet tamit xam ne war nañ laa seeti seeti nañ la ñu gis la ñàkk la gis tamit def nañ démarche pour gis la mais xaaruñu kenn nag sunu fonds la ñu jël ànd ak suñuy grand yu baax ku mel ne grand landing mi bu ñu bu ñu naree bu ñu naree reculer rek bu ñu ko gisee suñu ginnaaw rek dootuñu mën a dootuñu mën a dootuñu saña saña reculer kon ñu leen di wax mbir mi Sahel Fitness Sahel Fitness su raay la du ñun ñii ñi nga xam ne ñoom ñoo ko créé du ñun ñoo ci jaruñu mais dañu bëgg képp koo jeune la raay ak képp koo xam ne pikin ak fépp fo mën a nekk boo bëggee sa yaram bo ñëwee fi am fi 100 pour cent. de heure à quelle heure heure bi ñi ngi tijji de 8 h à 23 h demi du lundi au dimanche ndax dañ ko bëggon def du lundi au samedi. c'est gratuit wala da ngay fay. non da ngay fay. fay mën nañu xam ñaar séance téeméer la. ah, abonnement bi 10 000 par mois non, la non lay kiwé espace bi nak su féké walu dañuy def gym dañuy def musculation gym bi lundi le vendredi. Lundi vendredi, à partir de, 19h, 22h, On est heure Zimbi. Espace que vous il y a 40 personnes dans Zimbi. En Corse, ça, il y a 40 personnes dans Zimbi. Espace de musculation, comme vous le voyez, il y a 20 personnes. c'est ce que en résumé moom lañ la doon tënkal li nga xam ne Sahel Fitness mu ngi koy jëmmal na ko fii senegal ñu bëgg koo commencé nag suba le 15. waaw suba la 15 mai. suba le 15 mai lañ ko bëgg a ubbi fii ci ginnaaw raay ñi ngi ciy sant nag ñi nga xam ne tamit ñi ngi jàpp ci liggéey bi ku mel ne Ndiaye Ciss xam naa ne kenn du wax ci wàllu sport. ci ginnaaw raay wala Pikine te tuddoo ko ci moom it mu nekk suñuy conseil am yoo xam ne bi ñu ko bëggee jënd ci moom la ñu dem mu jaay ñu ko am tamit yoo xam ne mu participer nag bu baax a baax moom it ñu koy sant tamit di ko gërëm di sant nag ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp xëy na bu ñu limee rek dañuy juum mais moom bu ñu ko limee rek yóbbaale na ñi si des ñëpp incha allah ñu ngi fi ñu ngi ciy sant tamit ku mel ne Babacar Sarr mi fi jóge léegi tamit nekk ci maire bi sant tamit monsieur le monsieur le maire ñoom Pape Diop ak ñi nga xam moom moo nga xam ne moom moo ko waafee gox bi ñu ngi si sant ñëpp di ci sant tamit sunu chef de quartier Ousmane Beng moom tamit vraiment jàpp na ci def na ci rôle bu am solo bu ñu ko ko waxee ànd ak nañoo ñun dugg ci koñ bi yëpp wax leen ko ànd ak ñun dem ci police bi présenté ñu loolu tamit ñu ngi ci sant bi ñëpp daal wasalaam yi Orang kenal right? Nepal, abang senang lewat sendiri. Saya ke

parce que ñëpp xam nañ fi ñu jógee ñëpp gis nañ aussi fi ñu jógee difficulté yi nga xam ni euh, moom moo leen fa jëlee day ñu boole seen doole li ñu am ak li ñu amul at li ñu wuti ñëw ngir lan eh, ngir gën a soqali gën a waxaay parce que tey jii euh, euh, jigéen wuñ fenn en fait parce que saal fi ñu nekkoon ginnaaw xaay la fi ñu wutaat ginnaaw xaay la kon ça veut dire que eh, ginnaaw xaay moom moo lañ ñor te ñu fi nekk ñëpp nag ay doom ginnaaw xaay la donc su ko rek li ma leen yi ñu gën a ñaax rek mooy ني داف ني با بولو دون بن ان سي لي ناني كو غنا يوك جيجين ني ناني خامن اي جيجين لاي غور ني سيني كليفا لاي كليفا يي اوسي ني خامن الله نغو سيني فسر الله

mu doon loo xamante ni dafa boole lu bari ci ñun bokk nañu ndey bokk bàyyi pour l'instant fii amul xaaj amul seen ku nekk tey ji mën ngaa tëdd sa kër moroom ndax li ñu boole muy sport bi kon dañ cee fier mu doon loo xamante ni tamit ñu démarré ko amaana demagul fenn mais ñu ngi ci sant yàlla parce que ay ndaw lañ te ay ndaw tamit bu ñuy wut dara dañ leen ci jàppale bu baax ci sant yàlla bu baax di ci woo ñëpp tamit ñu ñëw jàpp ci encore parce que ginnaaw raay la te ginnaaw raay dañ naan euh, Pikine mbooloo waaw te ñun dañoo booloo doon benn di woo ñëpp ñu ñëw booloo ñu doon benn tamit ci lii nga xamante ni ay ndaw ñoo ko sàkk wut ko pour mu doon loo xamante ni pour wér gu yaramu doomu aadama pour loo xamante ni sa santé tamit da nga ciy jëlee lu bari daal ñu ngi ci woo ñëpp di ci rafetlu tamit lu baree bari di ci rafetlu waa GIE bi ñoom ñëpp góor ak jigéen. liñ ci def ñu ngi leen di aussi di leen di la remercier yow bu baax baax. la wala secrétaire c'est bon asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp voilà di wax askanu ginnaaw raay lii seen yëf la Sahel Fitness bañ ko taxawalee moom lañ bëgg a taxawal bëgg koo ubbi suba incha allah bi di leen wax rek ne ñu ngi fi di lundi au vendredi pour les cours de cours collectifs ñu ngi fi di lundi au vendredi dinañ fi am aérobie bu dee attaque bu di combat. bâton step circuit lépp loo leen soxla rek personnel training nga nekk xale nga nekk mag loo bëgg incha allah boo ñëwee fii rek di nga fekk coach yu xarañ yoo xam ne di leen mën a jàppale incha allah di leen wax rek ne loo leen bëgg incha allah boo leen fi ñëwee di leen ko fekk. yan âge moom ngeen am xam nga sport amul âge. amul waaw ku nekk càmmal càmmal ku nekk war nga def sport mais comme ça dañuy soogul lu si ëpp jeune yi la ñuy commencé. Mm-hmm. 18 ans 16 ans 15 ans mën nga entrer entraîne le kaw voilà mais peut-être que leen avons un programme pour xam occuper. par exemple les cours de karaté les cours de boxe cours de gymnastique au sol Nous sommes des ngi mais pour l'instant nous compte démarrer la musculation pour l'instant merci Iya, benar. Kayak tahu explique. Eh, tapi kita ya. Lagi guys. Kita bilang gailnya ini uti yof, jika uti ai Dakar le pengen fikir Ah. Dapat dapat dapat. Masih de orgam. machine bi nga xam ne dañ koy génération koo dañ koo am na yu yoo xamante ni. dañ doon xeeb boo nee boo liggéey jëlee ginnaaw raay baa ngi wala espace wala affaire fekk ci saal mag yi. Ah. soo ñëwee ci saal bi ñu ngi góorgóorlu ba la ci fekk. ko jëlee xaw a kii mais population ginnaaw raay jaroon na lu ëpp gën a kii soo jegee ci tapi bi ci galo yi.

semi flexible bi limi muy liggéey bari na quoi li muy liggéey dafa généraliser quoi bi comme par exemple c'est automatique da ngay def nii mu taal léegi benn da lay wax li nga bëgg loo bëgg a liggéey da lay koy wax nii comme cardio nga bëgg a liggéey wala perte poids wala dégraissage affaire yooyu comme benn nga def perte poids mu def nii nga def nii ne choisir objectif nga def nii calorie da ngaa bëgg a sa calorie affaire yooyu nga def nii mu ne la lima objektif, sah, bi valid. nga saat mu ne la sa at ñaata at nga am par exemple nga def trente cinq ans mu ne la validé nga validé poids ñaata nga def soixante cinq mu ne la validé nga validé mu ne lu vert lii fii la jëm pour li nga bëgg a liggéey bu ngay dem. ak vert. waaw bi day bi droit bi fay objectif bi. boo defee nii ndànk mooy wert bi fay na. waaw léegi nag chaque jour dara wax. jeex na. gars yi waa ginnaaw raay waa Dakar gis a pen gis a pen yow mi nekk Fass xam nga ne lii ñun li nga am amu leen ko ah ñun waa ginnaaw raay li nga am amu leen ko xoolal ma lii rek yàgg naa dugg saal mais bii amu fa de ah, bii amu fa bii ñu ngi ko jëndee presque 15 millions gis a pen bii 15 lañ ko jëndee. duñ seen morom. gisoo même pas une minute ngay commencé ñàkk tooy une minute même pas une minute gis nga ma. Uh-huh. maa ngi commencé siit. te noonu lay continuer te gis nga Jibi Diouf ñëwal fii yow lu bëri suukar ak sa jabet bi. waaw ah, lépp loo ci bëgg dana ah. mi ngi nii di dem ok te fii la war a sës nga atteindre sa objectif. sama gars yi jërëjëf <laughs> fi may fi may Gossas. Gossas taamu Gossas. da ngaa assisté deux fois pour naan nga décliné boo décliné ku ne ginnaaw raay ku ne ginnaaw raay wax wax mbër. mbër yi ñëw leen fii. ku ne ginnaaw raay waaw ah yow mii ambassadeur ginnaaw raay Eumeu woo fii sox ñu woo fii. waaw Seras. ndeysaan bëri ñëw leen fi loo leen yóbbu fi wala ñëw fii suba teel di ngeen entraîné kenn du leen am na box am na box naa coach box bi yaay coach box bi soo xam na ma ah. paa xam na ma hmm. naaru sokaas xam na ma man xam naa la Ibra <laughs> <laughs> man frère bi ki yor Ama Baldé waaw moo ma jàngal box moo ma machine bi moom li muy liggéey dafa bëri quoi niveau machine bi. par mécanique la li muy liggéey dafa bëri. liggéey doo day liggéey très service day liggéey day pour dama. dama taxaw liggéey bi machine bi. ak nu mu tudd. machine bi machine deux doigts la. deux doigts taxaw deux doigts. Hmm. deux doigts bi moo liggéey doo day liggéey triceps. Hmm. day liggéey ventre au

huit heures ba vingt trois heures ku bugg a entraîné ñëw fii si salle Sahel Fitness di leen jox rendez-vous prochainement ñëw fi def reportage fekk gars yi si mbéy bu baax